mën ngeen seetaan itam émission bu leen neex wala bi ngeen raté mën ngeen koo seetaan naat ci application bi application Leral TV mooy télé ci poche